ñëpp wax ñëpp te tàggoo itam nag wax ne maa nga jëm ndar de damay dem bu ma demee damay dajale waa bennoo bi pour ñu waxtaan pour naka la ñuy demee ci élection locale bii ñëpp wuyu si ma nag ñëpp. man wax jëmbay dama la koy laaj bi ma ñëpp wuyu see. ñu ne man la ñuy joxaat. ma ne alhamdulilah non loolu kay wax léegi nañu dég nañu déglu Macky Sall président comme moom mooy tab in fine bi président waree tab wax ne. Euh, Khoudia mbay la ñuy tabb Gandon pour le bennoo Bokk Yaakaar xam naa sa xëy na pour firndeel li nga doon wax léegi kooku ñu tudde coordonnateur moom moom ma indil kayit bi président joxe pour ñu tabb donc xëy na loolu firndeel na ni effectivement mooy coordonnateur parce que moo ma jox. donc man li nga xam ne moo ma soxal rek mooy tey jii euh, maire gàndon bi nga xam ni moom la yàlla dogal ñu war ko falaat Benno Bokk Yaakaar nee nañu président Macky Sall nee na Khoudia Mbaye la tudd. bu bës baa bulletin bi yore bopp fas bi sama mbokk përi naan ka xoore puccoo <laughs> boobu ci la ñuy voté naa keneen ku am beneen liste tamit ñëwal. waaw léegi man dama lay laaj man ñeme ko tudd wala bëggoo ko tudd bëggoo ko tudd sax laa war a wax man ñeme naa ko tudd sa diggante ak Mansour Faye lu fa xew. jàmm. déedéet. ah kay. déedéet xuloo wuñu de. ah yow léegi coordinateur nga wax yow. xuloo tuddoo ko sax nangoo ko sax tudd. xuloo wuñu madame xuloo ngeen da ngeen bokkul jëmukaay wala dafa jël dafa am dafa am chevalier cheval de trois moom bu nekk si suuf bu mu bëggoon placer te mujjul nekk xam nga ah, man daal xam naa ne am naa juróom-ñaari candidat contre man ci sama commune tey jii nii tey jii nii am naa fa candidat wu ah candidat wu nu mu tuddati Diop si Diop si ma sa Tiwaawan am fi candidat bu tudd Alpha Diop dégg nga Diop si am candidat bu tudd Alpha Diop yeewi askan wi am nañ candidat mu tudd Ousseynou Niang euh, waa kër Maritaw. am nañ fa candidat tudd Oumar am na benn candidat AJ PADS man xaw moon sax ni AJ am na sama commune mais am na benn candidat bu tudd AJ euh, bu bokk AJ ñu Ibrahima Sy defe naa. am na candidat bu tudd Doudou Diagne ñu ni mooy candidat parti Oumar Sarr bi PLD am na keneen tamit ku tudd naka waaw ku tudd Badara Seck ñu ni mooy candidat wallu am naa am naa ay candidat bi. juróom-ñaar si comique juróom a kat yaa ngi sourire rek. day a defal ndànk yaa ngi sourire dafa mel na yow juróom-ñaari candidat yooyu <laughs> da nga leen xeeb. <laughs> non du ma xeeb kenn xeeb candidat kat ëpp naa yow yaa njortoo ni comme yow naa def yaakaaroo ni biir APR amuñu actuellement si juróom-ñaar yooyu. wala ah, ki nga xam ne mooy candidat Diop si. moom mooy taxaw ni wax ni mooy candidat APR di wax sax ni kooku nga tuddee coordonnateur moo ko moo ko jàppale que président dafa kii rek dafa xamul nu may def rek moo tax mu investir ma euh, loolu yëpp xew na fi di waaye bon xam nga. man du ma dox ci sa digganteeg Mansour Faye neexul du ma dox ci yooyu. sa digganteeg Mansour Faye neexul. Euh, neex na de sama rakk la. lan ngay tàgg lan ngay tàggoo ko di